jiima way la ay wala ngir yàlla def naa ko ay arab du mën a collo Serigne Abdoulaye Cissé Bo yaa namp weenu diine yaa xam yàlla dees na la kañ ngir yàlla mbaate yulla borom Tuuba yëmbal Baay Faal bi Sadu Baara Mbakke yaay garmi Cheikh Abdoul Aziz Abo Xidmatul Xadim yaa namp weenu yaa xam yàlla ay Mbakke dees na la kañ ngir yàlla sëñ am day sabo yow yaa dañu seexa moom yaa dañu yow yaa dañu seexa moom yow yaa dañu seexa moom yow yaa dañu seexa moom mi ay mu Bamba Jaara li lay waral feyam bi moos daanu ku lay li jël giñ naa ni lee ay mbàkke gisoo dërëm ba nga fàtte yàlla sëriñ Abdoulaye si sa baay sëriñ Abdoulaye si dërëm ba nga fàtte yàlla ay mbàkke yow gisoo dërëm ba tax nga fàtte yàlla waaw gisoo dërëm gisoo dërëm ci xamala bi fi matul xadi maay faalu sëñ baaro yow gisoo dërëm ba tax nga fàtte am nga cofeel ci Bamba Mbakke bala Sëriñ Abdoulaye Si boo yaa taaru yaa tabe te am nun de jox nga nu ay junni junni junni junni sambar du solo ku bëgg baay faal bi jógal taxaw ca kaw màggal sëñ bi de si nun de nga nu ay junni junni sambar du solo sawaay du ñewaayu keneen sunu waaji sawaay du ñewaayu keneen sunu waaji oh. sa waay du ñeewaayu keneen sama waaji man ma ge tamb may sab géwél ci diine yow laay waaje ku seet sa leen yàlla fay taxawaay bi rafet na liggéey bi rafet na ñu ngi leen di gërëm di leen sant si seen teewaay si suñu bés bi amuñu lu dul bésu Serigne Touba bi bésu Serigne Touba bi nag ñun tamit ci biir bésu Serigne Touba bi amuñu si ku dul sëñ Abdou Aziz Mbacké Abdou Aziz Mbacké abo sëñ abo sëñ baara sëñ Touba kooku xam nga direct la saa yu màggal tubaa jotee ngeen teew fii ñu dem jële ji ko Mbacké Bari escorté ko ànd ak moom pour circulation bañ ko téye dugal ci biir kër gi noonu ngeen sëñ Abdou Aziz Mbacke mënuñu ko fay ñun day wax dëgg yàlla fi mu ñu jëlee ak lim ñu defal yàlla rek moo ko xam at bu ne ñu yokk at bu ne ñu gën sant lu ñu def ren benn bu déwénee ñu def mën fukkam te yàlla ak jëmmam jee tax si yàlla la ñu xiir jaamu yàlla sax su njub coo topp yoon siraatal mustaqim sëñ Abdou Aziz Mbacke yàlla na gudd fan yàlla na wër yàlla na yenam ayof lii daal def xale yi nekk Pikine daawaamu sukri barke sëñ bi ci ak wakiilu ci yàlla mi ba tax na doo Abdou Aziz Dabakh ba tax nga fàtte yàlla am nga cofeel ci Bamba Mbakke Balla yow gisoo dërëm yow ba tax nga fàtte yàlla am nga cofeel ci Bamba Mbakke Balla yaataaru yaata be taa jox la nooy junniy junniy sombar du suulu sa waay du ñëwaayu keneen sama waaji man sey gëwél ci diina yow laay waaja ku set sa xol bi gis yàgg wakiilu ci yàlla mi ba tax na doo wandeelu ci kenn aajo lu dul ci yàlla yaanu wonuk woyof ba tax nu am la gu yàlla day wakiilu maa